yàquwaayu jamono surtout nag tubaab bi nga xam ne léegi dañoo mel ni léegi eh, ngànnaay yi léegi xel lañ ñi ci doxe da mel ni ki lu jëm ci wàllu jumtukaayu adduna yi muy internet bi ndax damaa mos a toog sëñ Mamour moom Cheikh Amadou yàlla na yàlla yokk leeram wax ba noppi mu am góor gu toll ci juróom-ñaar fukki at yor portable di manipuler am doomam jum toogal doomi sëñ Mamour di ko wan ni koy defee sëñ Mamour ne ko da am ci këf mu ne ko waaw mu ne ko ah boo ci amee dootoo jàngati ñaar fukki si bi alxuraan waaw ah, dana ko boo ko amee dootoo jàngati ñaar fukki si ñaar fukki si bi alxuraan ci ngay dëkk rek loolu yomb naa xam ndax fi nekk nii saytaane sim ñu roof ëpp na ndax fexe nañ ba neexal ko ci say xol ci sunuy xol fexe nañ ba boo yoroon jukki jukki bi alxuraan di waqaf bu message bi ñëwee li feeg liiroo ko doo am jàmm waaw loolu lépp saytaane la fexe nañ ba tamit ba nga xam ni waxtu wu ne dañuy fexe ba nga dëkk ci dafa waroon a xëy suba nafar alxuraan mbaa nga jàng xasida mbaa nga doxi lu baax loolu mën na laa tënk ba boo ci yandu woon douze heures de temps day mel ni benn waxtu nga ci def yàqa mi ngi yàqal mi ngi mi ngi yàqalu bare bare loolu ku nekk foo nekk war nga ko bàyyi xel def ko muy métier muy def ko muy loo xam ne jumtukaay la nii rek wuyu ak ndax lu baax a ci lu bon a ngi ci waaye nag ñu ngi ciy sàkk lu baax ñu ciy sàkk lu baax li waaye mu bañ ñoo yàqal dara waxtu julleeg waxtu jàng alxuraan waxtu jàng xasida waxtu def lu baax ndax tubaab bi moom ngannaa yu ñu yor saa ñu di ko gën a daas te duñ bàyyi mukk duñ bàyyi mukk kon yàlla nañu yàlla sàmm yàlla yàlla dolli kaaraange yàlla nañ dégg ndigalul Seexul Xadim te dégg am jàngaleem te loolu rek bu amee yàlla suñu borom mën naa dogal dinañ dinañ maanaam dinañ tëlu bëree bëri kon yàlla nañu yàlla kàttanal eh, bu baax a baax a baax waaw kàddu yi nag xam naa moom kàddu yi kàddu yi yu gàtt lay doon rek sant nañ bu baax gërëm nañ bu baax a baax a baax ci barke Seexul Xadim jërë ngeen jëf wasalaamaaleykum